Toi, tu te de moi. Et tu me montres que tu ne me respectes pas. Parce que tu sais, un homme qui se respecte, et sa famille, doit faire attention à, à, à que tu fais. Je magué ça doit ça doit 5 ans, il y a peut-être sa sa moromu doom dina la noq ci réseaux yi ba ngay jooy bu pare àndaat ak yow sëy ak sëy bi parce que yow sëy bi moom doo xoolal bu yeboo nga bindal ma say lettre naan may nga ma baat xam nga Ndiaye Fall daf maa fokkaaloon baat bi yow danga mu ngeen gis baat yow ba nga ma takk danga maa meeloon lan boo bëggee tas ñëw sama kër yaay toog meew sama baat lu tax nga may meel baat meel baat validul mag yow demagunu mairie de église ak jàkk lan dem kon sa meel bii c'est benn document duma ko signé parce que amuñu benn certificat de mariage mais xam lu nu am certificat de mariage mosquée te sama certificat de mariage mu ngi sama pochette ma téye mu ngi ci biir pochette bi te ku ñëw naa ma jox ma ko bu ma la noqee sama paaka yi ma def fii damay changé tur imam daal imam bi moom ne woon naa ko amuy tax si ne woon naa ko imam takk nga fi ñaari sëy mooy sëy yu njaaw faat bi ak sëy yu kii nga sëy bu tekkee ko sa kër laa la fekk jëm la paax imam bi dafa tiit fi ne nii woo na ma dina ma sëy bi moom maa ngi maa ngi nii di ko wàcceel kaay ma ne ko ne wàcceel kaay mi doo mën bu tasee mordom day am ci dëkk bi ay mordom ma ne ma waaw waaw bi kay du tas bii kay taalibe bi ma ne ko taalibe bi nañ ci ne yow mi naan tey suba envoyé naa ne cent mille francs ci daara bi ndax nu wàccee waat ma kaamil chaque jour ma wàccee kaamil ndax yow fi ne sa rab bi laa bëgg faj njaaram bergaan xam na ne Nabou Dash du sëy ma jël décision ndax rus sénégalais ne damay sëy sëy bi dama ciy dama ciy sëy ba dee li ma waxtu tàndee géej sëy bii ba dee rek damaa ko doon way sama jour mariage sëy rek ba dee